mën nga ñu expliquer Moussa Moustapha Moustapha fabricant de Kora. waaw yow yaa ngi ci stand Sédhiou xanaa waa Sédhiou nga. waa Sédhiou euh, mën nga expliquer li ngay liggéey nii lan la nii. bon juste Kora euh, lay defar xam nga bi man euh, soose la. Mhm. pratiquement am na ñaar façon wala façon Kora. xam ne mën na am son da nga liggéey am na kóolaa yoo xam la da ngay da ci laa nekk nii pour meubler rek mais mu nga tey du am benn son mais quand meuble la ça fait partie de l'art quand même oui. Euh, yi nga xam ne dañ ciy joué yow itam nga ko defar nga ne ana mu xanaa exposé woo leen ko fi. ñoom ñuy joué. waaw non ñoom nekkuñu fi. non non kookaay yi nga xam ne dañ ciy joué. defar ngeen ko. waaw mi ngi anamu. bon am na ñuy joué mu sëriñ laa ñu xool. waaw. essayé ñu xool. son bi demeewul de. voilà du am son quoi. lii décoratif la ah. voilà la mais ngande ngande moo am 21 copes 21 copes et puis euh, ñoo am son yi mais ça c'est pour juste décorer le salon voilà voilà jërëjëf yi ñu tëgg ñoom man li am koraay mais lii moom c'est pour juste décoration bi rek ça on se retrouve euh, en Afrique euh, l'Afrique on est que ça la culture que nous connaissons loolu rek la ñu xam. léegi commercialisation bi nu muy demee est-ce que kora bi euh, vente bi mi ngi dox fii bu baax. bon en fait. ñuy xaar client yi. Ah. parce que c'est la foire. oui. foire bi noonu la quoi xaar client yi bu ñëwee da jaay la parce que chacun a son choix quoi ah voilà j'attends la Cora da ñëw ci sant. Euh, Sédhiou Sédhiou voilà dañoo fekk ñaari façon Cora